man alaaji Maalik jeexal naa sama lépp faf lépp lépp ngir bëgg Muhammad lu tax waay ëllëg ca jë ca jëkk daje ga ci lëndëm ga ngay jëkk a daje la ngay dajeel moo tax ma faf sama lépp sakkante ko ci Muhammad ba mu ma dajee moom mu sawar ci man mën naa defar moo tax mu ne ko waleen sa lii amalun alxaaka ya amali سوى المحبة والتعظيم والسلام وليس لي عمل ألقاك يا آلي وليس لي عمل ألقاك يا أملي سوى المحبة والتعظيم والسلام
sama maam nee na
ألقاك يا أماني والمحبة والتعظيم
sama maam nee na wala si li amalul alxaaka yaa amali man man Muhammad seet naa seet lu ma loo defal sërite wala ma defal la ko yóbbal wala ma defal la ko cadeau lu ma indi rek di yelloog la ca la nga béngool lu ma ne nopp rek man ci xaaji Malick bëgg na koo defal cadeau fekk na loola di yelloog yow bi ma ñàkk a taxe nag am naa fu ma fu ma fu ma am naa fu ma jàppandiku si wal mahabbati wa taadimi wa salami bi ma xamee ne aw ma benn cadeau bu ma la jox ah xanaa sopp la xanaa màggal la xanaa wommatu doy na suma xatala bi risalata nag wa dilalata wal bisharata wal nidarata wal nubuwat mu mottalee ci Muhammad yónnante ga ak tegtal ga ak dëggal ga ak waare wa ak yónnante ga ci dang min xaytu annahu tawaxasha doon al bashar qaadata rabbi al ali al kabir al mutakabbir ذكر ولم يلي شغل شاغل لا خطر أما علي من الفكر والنظر mu njaaluma Muhammad di jaamu borom ba borom bi nga xam ni moom màgg tey waaja te ba muy jaamu yàlla ca xaaru xiraa soxlaa lu ko benn soxla amul leneen lu mu xalaat xanaa ma ngay jaamu ci xalam ak xool ci fan ak ci kan ilaa ajibi sumi alladi atqana kulli shay ci ci loolu nag ci loolu nag laal xaaji Maalik nag doxe alladi laa yujaaraa wala yubaahaa wala yubaahaa man sammaahu samaa wa dikruhu namaa lahu lyadu tuulaa walgaayatu alquswa walmaljau walmawa cheikhu almashayiqi fi iman walislaam wa xujjatullahi ala alanaam in qaama qaama bih wa in qaada qaada maa allah wa in taxarraka laa yaqudu ila allah wa in sakana itma'anna maa allah wa in saala saala min allah وإن عمل عمل لله وإن أعطى أخذ من يد الله جميع شؤونه من الله وإلى الله وفي الله وبالله mooy waaja rek waaye góor gi waaji waay war a sudi xaaji Maalik li may xam ni kenn du bukkalanteeg moom ak di ko jéem a nuru nurulu mooy waaja nga xam ne turam yëkkatiku na mooy borom loxo bu jot ba mooy borom dayo bu àgg ba mooy wéeruwaay ba mooy tàppuwaay ba mooy sëriñu sëriñ si ci li imaan ak lislaam mooy law yàlla ëllëg ci mbindee si bu dee jóg day jóg ngir yàlla buy toog day toog ngir yàlla bu dee yëngutu yëngutoo nga yàllaay tax bu dee dal dal nga yàllaay tax buy laaj yàlla lay laaj buy jëfante yàlla lay yàlla lay jëfanteel mbooleem mbiram yëpp mi ngi ci yàlla jóge ci yàlla jëm ci yàlla dellu ci yàlla jógaat ci yàlla waaye kookale waay kookale kookala almusaaru ilay bil banaan mooy que loxo ñëpp daal waajaan la ba da ngaa am ni musaaru ilay bil banaan mooy que ñëpp di joxañ mu waaye fu ñu ko joxañe waay jël irfaan yi borom xam-xam bu dee ba xam nga yàlla il biir di wa suudaan ci ku ñuul ak ku weex kana alxaaji Maalik Osmaan foofu nag la niitoo wax bunt bii ni min baadi taa in wala min summa sittati ashhurin رأى كم فلاق الصبح لم يهن والله أرسله للعالمين هدى ورحمة إذ مضى جزل بلا وام في يوم الاثنين في شهر المعظم إذ لإبراهيم مضى عشرون بالأمم وكان برءا على حب الخلاء إلى أرجع في الغير روح القدس اليمني لا تك مو واحد من ولا يلا.
بعد قائل ولا من ثم في فتح عشرين راكا في العقيف في الأميام
مم. آه.
والله أرسل للعالمين هدى ورحمة إذ مطاجز بالأوامر في يوم الاثنين في شهر المعاون لأبروي فمضى العشرون من أمامه مغنين وكان بدءا على حب الخلائق إلى أن جاء بالغار روح قتل بينامه
soomam nee na raa gént na moom Muhammad kan fi laa ko sëbxi mu deme ni ki xarug suba lam yëyi ni te gën a mucca kañ kañ waay min baadi faa'il ci gannaaw juróom-ñeent wala min ak fanweer summa sittati ashirin topp juróom benn weer boolee fanweeri at ak juróom ñeenti at ak juróom benn weer xanaa mu def ñeenti weer te soo mat ñeent fukki at ci la commencé di gént te gént bu mu gént kat dafay mel ni xar-xaru doj waaw gént nag gént ñaata la mooy lan wala si li dee di ñeel ma amalul jëf alxaaka bopp danaa mën a dajee koog yow yàlla yow Muhammad yaa amali yow sama mbébét yaa amali yow sama yaakaar aw ma dara lu ma mën a dajee yow ba dox la ko wala ma defal la ko mu neex la ci wal mahabbat lu dul sopp la rek wa taadima ak màggal la wa sallam ak wa mug si yow wallaahu yàlla nag arsaloo yónni na Muhammad hudan mbir muy jëmmi jub wa rahmatan ak jëmmi yërmande lil aalamiina jëm ci mbindeef yi ismaba ba wéyee jësilun ak dëgër te ba ba jësul la am déggal Maodo isma ba ba wéyee jësulu ak dëgër te ba Muhammad jësulu la am te mooy ñeent fukki at jiim ñaata la du ñett renseer ñaata la du juróom ñaar lamara lan la du fanweer boo boolee muy leen ñeent fukki at waaw yónni nga kañ la am fi yónni lisnay ci bésub altine ci wanweer ci séeri ci weer wa almuadam ba di bu ñu màggal te mooy ramadan ci fukki fan ya ak juróom ñaar ci ramadan ci la yónni Muhammad waaye ci yan jamono ismaba ba wéyee li Ibriis Ibriis mooy kan maliku ni muluku furs wa maana al muzaffar huwa alladi mazaqa kitaaba nabi alayhi salaam moo xotti woon téere lettre Muhammad ba alaj bali bayu dara waaw waaw raa na gént ñaata la gént ñaata la jant am na ñeenti xeet annawmu ala arbaati anxain istis istilqaa wa nawmul anbiya tafakkuri fi maxluqaatillah wa nawmun ala aljambi alaymani wa nawmul ibaadi wal ulamaa wa nawmun ala aljambi ala aljambi alaysari وهو النوم الأطباء والملوك والنوم على الوجه هو نوم الكفار والشياطين لعنهم الله nelaw ñeenti xeet la ñeenti façon nga nelaw ñu yàlla yónni yonent yi yàlla yónni ñu mu solo yónni leen ñoom jaaxaanaay la ñuy baaxoo di nelawe lu tax di tafakkuri fi maxluqatillah bind gi yàlla mbindi mbindee fi ak li muy def ci façon ñoom jaaxaan la ñuy def moo tuuti jóg dem seen yoon wan noo mun alal démbi lay mani wala ndelaw ci wàllu ndeyjoor kooku noo mun oda ibaadi wal ulama jaamu yàlla yëpp fóore yëpp ñëpp la ci ëpp te du ñu yéefar wetu ndeyjoor la ñuy nelawee wan noo mun alal démbi ay sëri wala boo nga nelawee saballu càmmoñ ñooñu ña la noomul atibaa wal buluk docteur yi piir piir piir ak buur yu jëkk yi seen wàllu càmmoñ ndax seen buur bañ a gaaw a fay wan noomul àlla wa ci nag noomul kuffaar ak shayatin kàccoor yi ñoom dañuy defeelu waaw mu ni hudan wa fualun maa jaa qattu masaran siwaa tuqan buxan bukan hudan sura faalu du nekk master mukk lu lii rek tuqan buxan bukan hudan sura yàlla yëru na Muhammad nag ci mbindee fi ngir yërmande waaw yërmande gi Muhammad ci mbindeef yi lan la ak yërmande Muhammad ci naafiq yi lan la ak yërmande Muhammad ci yéefar yi lan la ku nekk sa yërmande bi ma dema rahmatan lil muminina bil hidayat jubal gi muy jubal way gëm ñi ba ñu mën a dellu ci yàlla jaamu yàlla mooy yërmande nga seen wàll wa rahmatan lil munafiqi bil amaani lil qatli ñoom wóor na leen it comme naa fekk lañu seen mbir wóor na wóorul wóor na leen yow kenn ñu di fi nekk kenn leen rey rek garanti gi leen di garanti ba kenn leen rey loolu la yërmande ci naafeq yi moom Muhammad waaw wa rahmatan lil kaafiri bi taaxir adaabi yërmande la ci yéeféer yi ndax maa kaana allahu li yuadibahum wa anta fihim wa maa kaana muadibahum wa hum yastaghfiruun bu jëkk loo def loo def bu jëkk yàlla def la dog wala garab wala leneen wa am naa wa isaafin summa naa ila isaaf góor la naa ila jigéen lañu zanaya fil kaabati fa masaxahum allah xijaaratan léegi amatul nag loo def def caay caay boo dee yéefar it bala laa yàlla duma di di ëllëg ba fi tuubee buñ sa saaf boo fi tuubal du sa saaf loolu moo tax Muhammad di yërmande ci yéeféer yi aa wakkaane nekkoon na ma Muhammad ala xubbil xalwati di sopp wéetaay way wi rek a tax moo doon di xalaa ila an jaa ba dikk ruuxul qudsi ay ruuxul muqaddasi al mutahari min al adnaas jibril boo gisee ko ruuxul qudsi amul sobe amul bàkkaar amul tér dara saxu ko moo fi ruuxul qudsi lam yàlla mi kat ba mu koy dikkal lam yàlla mi de ah ikramatu yàlla nag arrahmanu bi rahmatin waxidatin ndax muhammad nee na inna lillahi miata rahmatin وأنه نزل من الواحد إلى الأرض فقسمها بين خلقه فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وأخر تسعا وتسعين نفسي يرحم بها عباده يوم القيامة نيل يلا am na téeméeri yërmande yoo xam ne da koo dëxañ ci aljanna benn yërmande la wàcce fii séddale ko te benn yërmande ba nga ci lay jëloon na ku ma yërëm ci lay dunaa ku may ëllëg su ma leefal ñu ma benn yërmande bi rek moom la ñuy séddoo ba bu sabay wan juróom-ñeent fukk ya ak juróom-ñeent yëpp yàlla ko dëxañ aljanna di ko nekk jullit yi yàlla yàlla boole ko ñoo waaw ana fa la woon jaamu nag xiraa xiraa xiraa xiraa xiraa xiraa xiraa xiran xiraa xiraa wa qubaa zakkir wa annisumaa maan wa mudda a waqtin wasifan wa mnaa sarfa xiraa waaw lu tax sang Muhammad bàyyi fi Uhud bàyyi fi doj yëpp dem di jaamu ci xaaru Xiraa li ma quffa bi taabudi fiihi doona xayri lu tax mu jagle Xiraa yooyee jamono moom Muhammad di njaal lu dem xaaru Xiraa dafa jaamu yàlla di nëbbu baayam Abi Talib mi ko yar ak i bàyyi taxam lu tax lu tax lay la ma lu tax waaye lu tax alxalwatu wa taxannusu wa nadru ila alkaabati ñéeg bi ak mën a jaamu bu baax ak di xool kaaba gi pour mën a féex jëlu ca yàlla loolu tax mu taamu ngaaru xiraa wa fi xabari ma yutlaa annahu sallallahu alayhi wa sallam كان إذا حضت صلاته خرج إلى شعر مكة وخرج مع علي بن أبي طالب مستقيم أبي أبي طالب ومن جميع أمامه وسائر قومه يصليان صلاة في الغار فيها فإذا أمسيا رجع فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكثا ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان قال صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به قال أي عم هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبي مريم عليه السلام لأنه فهم بن بس صلى الله عليه وسلم بمسان دم دم شغار خراء موك علي بن أبي طالب نوي عنده نب نب بايم نب أي باي تخم أم بن بس رك غوري كم مغلق أن عندنا mu ne man daal sama ñaari doom yi daal dëgg dëgg danaa xool ba xam lan la ñuy def mais bu dee ni rek ñu ne mel nga du ma leen gis bu ngoonee nu gont dem bu ñu xëyee gont dem ba mel ni ree la gisee ñoom ñaar ñuy julli mu woo leen ñu ko wax sama doomu mbokk comme ma gaba ko jur ma haada diinu alladi araaka te dayni bi jëm diine laa gis nga baaxoo ko di ko jëfee mu ne ko hada diinullahi wa diinu malaikati wa diinu rusuli wa diinu abi ibrahima alayhi salaatu wasalaam lii diina yàlla la di diina malaaka yi di diina yonent yi di suñu diina baay ibrahima alayhi salaam ndax yàlla moo wax ni ko wattabi millata ibrahima xanifan na nga topp diina ibrahima xanifan ay shariatahu waaw topp gi topp lan la wa maana ittibaa nabi ittibaa fi rusuli wala ay tawxid te ko ma yarghabu an millati Ibrahima ila man safa nafsa képp ku sib diine Ibrahima xanaa ku dese rek raxiba bu bu bu jalgatee an cibeel la ba jalgatee fii xannam la raxibtu xannam naa fii ka ci yow raxibtu fit naa an ka ci yow yàlla ne wa targhabuuna an tankixuhunna indiwul fii indiwul an lu tax kilifa yi lu tax raxiba bu jalgatee fii cibeel la ah xamam la bu jalgatee an xamam la raxibtu sib naa an ka ci yow raxibtu xamam naa fii ka ci yow da dafa ci moo yoo xam ne jaar jaar ma jëloon moo la koy teqale daawtu alayka ak daawtu lahoo ñaan naa ko yàlla ak ñaanal naa ko yàlla da ngeen di wa targaboona an tankixoohunna wa qul fii an tankixoohunna waxul an an tankixuhunna xanaa di an tankixuhunna rek indiwul fii indiwul an benn nga xemmem ngir takk diine takk indi wala nga dem a dem a dem a dem bala saa waa yi defoon ca dawdi si Haaji Malik ni yow yàlla sama jabar ji lëjal na ma lakkal na ma ci sa barke yàlla na ma teqale moom ñu ni ko waxoon ndànk di muy damaa sond moto yàlla indiwul an indiwul fii nga xemmem ngir jëmm yàlla wut ngir jëmm yàlla boo demee ba sonn ba sib nag nga bàyyi ko ndànk ci ci ci jàmmoo waaw waa millatu ak diine ak sharia leen teqal ñu ne ko at wattabi an millata ibrahima xanifa waxu ko shariata ibrahima waxul diine ibrahima millata la ko wax ma dema fal millatu wa diinu suñ bi nee na naa dem kon ma dem suñu abdu nee na ma demal damay dem fal millatu millatu wa diinu ak diinu wa shariatu bi maanaa waxid benn lañu wa il axkaamu allati jaalaha allahu li taabudi biha fa min xaysu imlaiha yuqal laha millatun wa min xaysu sharciha yuqal laha shariatun wa min xaysu tadayuni biha yuqal laha diin boo citee boo citee ñu bind te jëfandikoo gu ñu ñun la toongoo boo tëralee nii laa ko bëggee nii laa ko bëggee nii laa ko bëggee sariya ngoog wa min xay si tey ñu nag foo fi baaxoo nag suba nga julli tisaan nga julli takkusaan nga julli timis nga julli gee nga julli baaxoo daa tax ñu diin ma dema yàlla nee na nag inna diina nag inda allahi islam waxaat na ni lu tax mu wax ne diin islam nasalat lama daat alyahudu wa nasara annahu la diin afdal min diin nasraniya qala taala sharaa lakum min addiini ma wassee bihi nuuxan walladi awxayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu diin waaw biral na ñeel leen biral naa ñeel leen min alxitaabu li ummati muhammad sharaa yoonal na lakum ñeel leen yéen xeetu muhammad min a diini ci diine maa loo xam ne wasi dénke woon na bii ci diine ja nooxal yéen la ndox wala dig laala aw xëy na wahyun ilayka ci yow ci mbir wa maag laala wasay naa dénke nañu bii ca loole ibrahima ibrahima wa Muusa Muusa wa Isa Isa an mani ko. yaa ngi affaire boobu. an mani ko. ak yi moom la ngeen taxawal diine diine. an ñeent la. waaw. an ñeent la. ban ak ban. anu zaid. anu nasab. anu muxafaf. anu muyassar. anu zaid. an joo xam ndollante la foo gis anu ndollante dafay ànd ak lamma fa lamma ja al bashiru an ngir kenn du ko firiwaale ndollante lay doon wala anu na sab wa an tasoomoo ak woor seen xayrun lakum wala boog andu mu xafaf foo ko fekk day ànd ak lam kaan lam tax ni bil am si wala anu mufassir dafa am maanaam xawlu an wax naa ni gis naa il fulka bi ayuni naa mu jàppat an ma wax ni aqimu diin waaw lu tax na yàlla di muy dénk ñu taxawal diine mu tudd Ibrahima tudd Moussa tudd Isa te tudd yonent yi ci des waay waxul noox waxul lool waxul keneen ma dema wa amma taxsiisul mawlaa لهؤلاء المذكورين بذكري فإنهم أكابر الأنبياء وأولو العزم وأصحاب الشرائع المعظمة المجددة ñoom ñii ñoo gën a màgg ci l'anbiyaa yi ñooy ulul azmi ñooy waroom sharia yu màgg ya dégg nga wa ama man adaahu min rusuli innama kaana yubaasu bi tabliigi shar'i man qablahu ña ko jiitu ku ci ne dañ laa yebal ca sharia ca la jëkk ma dema um bañu noox wa ibrahima buisu bi tabliigi shar'i ibrahima wa hóod wa saalix buisa bi tabliigi shar'i noox um bañu ibrahima wa muusa buiso bi tabliigi bi tabliigi ibrahima wa kada min bayni muusa wa isa buiso bi tabliigi shar'i muusa waaye innama la yuzan man qablahum li anoo lam yakun qabla noox ahkaamul mashruati la jëkkoon noox amul sharia bu ñuy atte ñii ñoo am sharia yi ñuy atte ndax li anna Adama alayhi salaam kaana sharia tawxid wa masaalihul maash Adama sharia am dëgg-dëgg mooy wéetal yàlla ak jëfandikoo lu mu dundee wa samara dalika ila noox muy wéy ci noonu ba noox dik fa baasahu llahu nag bi tahrimil ummahaati wal banaati wal axawaati noox bi mu dikkee nag sharia mooy araamal takk sa ndey araamal takk sa doom bu jigéen araamal takk ko bokk ndey bàyyi wala wazal dalika al amru yataakkadu wa yatanaasaru bil anbiyaai waaxidan bada waaxidin wa shariatan bada shariatin xataa xatama allah bi xayri minal millatina ala lis akami rusul nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam masul daj nag di fàttaliku di dimbalante yonent gannaaw yonent sharia gannaaw sharia bu dikk ci waaja ngënk ma mi nga xam ne moom la motoy gën ji diine ji muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam walida ulima nag anna diina anna diina laa budda bil ibaadati wal ubudiyati wal ubudati ma dema diine il faut ci ibaadatu koy mën a def ak ubudiyatu ak ubudatu jaamu ak jaamu yin ak na ngay jaamoo ma dema ibaadatu mooy lan ba nga sa baaraam alsalaatu bila gaflatin wa sawmu bila gaybatin wa sadaqatu bila minnatin walxajju bila idaatin walgasu bila sunatin walibqu bila ida tudd yàlla bana loqat ak mboolem topp yëpp nga def ko ci jamaan benn gàtt gàtt kooku mooy ibaada ma dema mu nekk ubóodatu la mooy ubóodatu al ubóodatu الرضا بلا خصومة والصبر والصبر بلا شكاية واليقين بلا شبهة والشهود بلا غيبة والإقبال بلا رجعة والإنسان بلا قطيعة عبودة لك gërëm yàlla bañ di xuloo muñ bañ di tawat wóolu yàlla bañ a lëntal di di seede bañ a jëw di jublu bañ a dellu gannaaw di jokk bañ a dog kooku mooy ubudatu ma dema ah xam nga ñett ñeent la woon ibadatu ubudiyatu ubudatu ubudiyatu nag ibadu bi nag fukk la woon itam salaatu zakaatu sawmu xajju qiraatu quran ذكر الله في كل حين طلب الحلال والقيام بحقوق المسلمين وحقوق صعبته والتاسع لام المعروف ونهى المنكر والعاشر اتباع السنة وابتاع السعادة عبادته كلها جلي الركع قار أك دان القرآن تبي يلا ci waxtu wu nekk sàkk lu dagan taxaw ci mboolem ak julit yi lii mu nga jóg taxaw ànd ak julli ci lu baax julli yow teel nañ si ak sopp sunnas Muhammad nag ak sopp Muhammad mooy fukkeel ba moo tax yàlla ne in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah waaw ñu ne Ibn Abbas moo ndax julli juróom ñëw na ci alxuraan waay mu ne waaw waaw ñu ne yàlla indi na ko fa subhaanallahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun walaw alhamdu في السماوات والأرض وحيد الإرادة أراد حين تنسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الفجر وبعشاء العصر وحين تظهرون الظهر ما تمرني بهذا